nga def benn la koy wax ba fin du semaine mais xam leen ni la bind loolu lépp li xaw ci yoon bi lépp lu xaw ci yoon bi di ngeen ko yëg en exclusivité sur Jotna TV yéen a gis ni poste de l'ordre bi bàyyi nañu ak seen i dem porte de présence man soxna ñu ngi di ñëw ñu ngi dem en direction au lieu boo xamante ne balaa yàgg yàgg yàgg di ngeen ko xam incha allah suivre leen live bi lépp di ngeen koy am incha allah Fala, Márcio. El Hadj Ndiaye euh, asalaamaaleykum internet euh, internautes euh, Bon News tey ñoo ngi fii ci convoi ki nga xamante ni président Ousmane Sonko El Hadj Ndiaye connexion bi baax na baaxul wala sa connexion bi moo kii à mon niveau signale gu ma ko ah El Hadj waaye il est enfin sorti bon Sonko fi mu jëm nag xamaguñ ko xamaguñ ko. Euh, mais lu ci mënti am rek aussi dinañ leen ko wax mais sachez que ni moom démb la waroon bare moo final finalement génnagul woon sonko ngi di def benn déplacement bu ndaw ndaw euh, ngeen koy suivre en direct euh, sur Bour News fu ñu jëm xamaguñ ko en tout cas nañ nañ ci di war a jël VDN euh, ndax bu ñu jëlee VDN gauche la ñuy jëm wala droite non sa wifi bi souvent day daw élage vous êtes avec la télé des grands événements et en même temps sur la chaîne Jotna TV ñoom ñi ngi live si yéen YouTube ngeen di live bi. YouTube waaw Jotna TV ñoom YouTube la ñu live. ñoom uh, connexion baax na waa kay wan waaw laa mën a gëm de non wi moo baaxul uh, ñoo ngi nii ci suufu autopont bi autopont bu bees bi uh, ñoo ci suuf yi moom lañuy ñuy jël nii tourné nañ jël nañ beneen mel ni kuy dem li nga xamante ni moo di côté Saint-Lazare ñaa ngi toll bi bu bees bi Diarra ak Ousmane Sonko ah, moom gis noonu ci Lexus bi ñun ñoo pick-up bi ak son équipe eh, eh, de la com digital jël nañ VDN bi romb nañ Sonatel ñu jëm VDN côté Saint-Lazare xaaral wàcc ni ngelaw li dafa bari ngi nii di dem bi jël na VDN yàlla defal jàmm sant na ma sa ko bëgg